voilà chers internautes Sénégal euh, ñu ngi fii tey ci gàmmu gi euh, Medina Baye 2022 euh, ki ñu jàkkaarloo ni voilà Amadou Lamine Top dañoo def nag innovation bu doy waar mooy fii ci médina Baye ak li ko wër dañuy bàyyi rek moom mu expliquer seen innovation bi li nga xam ne création la ñoom ñoo ko def sëñ bi ñu ngi lay nuyu. ngi nuyu Sénégal yëpp di ziare ñëpp. di jiital ci nuyu bi suñu sëriñ Mawlana Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass eh, di nuyu imam Cheikh imamul akbar di nuyu Baaba Laay bi nga xam te ne borom gàmmu gi di nuyu njabootu baay bi yëpp waaye di nuyu taalib baay yëpp waaye di nuyu Sénégal yëpp donc ñun nag benn forum la bi nga xam ne on fii ci Médina Baye Niass on est au niveau de Médina Baye euh, mais les membres sont un peu éparpillés donc un mois avant le gàmmu on s'est comment on va faire pour améliorer ou bien euh, comment on va faire pour apporter notre touche euh, ci gàmmu gi. Sur ça on s'est réunis et on a réfléchi de l'idée de créer des codes QR de géolocalisation lu tax loolu lu ko waral c'est parti d'une remarque ci ne déjà ñi ñëw Médina ñu ci ëpp dëkkuñ Sénégal wala suñ dëkkee Sénégal day nekk première fois ñu ñëw Médina wala duñu xam yenn point stratégique Médina donc sur ça on a voulu les aider En quoi Créant des codes de géolocalisation qui les permet plus de demander, mais juste de géolocaliser fi ñu bëgg dem et automatiquement grâce à map mu yóbbu leen fa donc loolu moo indi lii nii tey donc c'est un travail boo xamante ne sa a été fait en amont avec toute l'équipe de Moutah Shabab donc tey résultat yi moo nekk nii et et laa ko mën a waxee attends je suis cadreur je suis cadreur bon j'ai déjà parlé de Lisa donc euh, tu veux je parle encore de quoi waaw voilà merci beaucoup voilà merci ok euh, bon donc sur ça on s'est dit comment on va faire pour aider les gens donc apporter notre contribution ci gàmmu gi donc avec l'équipe de Moutakha Chabab on s'est réunis et on a passé à créer des codes de géolocalisation pour faciliter les déplacements xam nañ ne Medina Baye ñu fi ñëw ñu ci ëpp dëkkuñu Sénégal su amee ñu dëkk Sénégal am na yenn kër wala yenn endroit yoo xam te ne da leen di réer donc même aussi les journalistes parce que on sait que journalistes soit ils viennent de Dakar soit ils viennent de d'autres régions donc su ñëwee pour dem ci kër Baba kër Pape Mahi ils sont là à demander de gauche à droite et les gens mën nañ leen wax fii wax fee ñu réer donc on va pour pour leur faciliter le déplacement on s'est dit on va créer des codes de géolocalisation il suffit les codes QR et mu yóbbu directement fi nga bëgg jëm xam naa je je vais vous faire une démonstration mais le but en fait c'est ça c'est juste d'aider les gens à faciliter le déplacement au niveau de Médina Baye Niass. léegi euh, pour un début comme ay taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima Seck bëgg nañ lépp lu ñu def mu importer d'abord suñu dëkku sëriñ muy Médina baay mais yam xalaatu yemale ko fii on vraiment l'élargir on sait que ce sera difficile mais je pense que ne euh, euh, waaw defal naa ko donc liggéey bi un engrais pas bravo waaw euh, on veut vraiment l'élargir au niveau non seulement de fépp foo xam te ne Taalib Bañes mi ngi fa mais tamit au niveau de tout euh, Sénégal parce que lii dina permettre nit ñi franchement ak vu technologie ni mu avancé les gens vont gagner énormément de temps et d'énergie ci laajte ak ci ak ci ci déplacement donc euh, xalaatuñ ko jëmale fii et pour ça on vous tend la main vous les médias yi nga xam ne yéenay passé communication yi parce qu'on a vraiment des partenaires parce que lii ça a été vraiment difficile parce qu'on l'a fait par nos propres moyens mais jaral la ñu ko foog suñu sëriñ lañ koy defaral mais on veut vraiment tendre la main à tous les bonnes volontés yi nga xam ne euh, gis nañ ne lii na te am na njëriñ donc on leur tend la main pour qu'ils viennent travailler avec léegi ñu ñëw ci code QR bi. Mhm. mode bi da ngay jël sa mhm. est-ce que est-ce que jox la lii pare jox la itinéraire bi nga war a def. effectivement donc euh, ci bon on a travaillé en équipe comme je l'ai dit en amont l'équipe de communication. Euh, avec l'aide de MAP aussi franchement quelque informaticiens et un designer on est parvenu à faire cela donc je vais faire une je vais faire une démonstration il suffit de prendre son téléphone comme vous le voyez j'ai un téléphone simple Moi aussi, comme, comme vous pouvez le voir, j'ai mon téléphone. Je, je vais juste entrer sur photo. Et ici, maa ngi am kër Cheikh Mamadou Mahi. Cheikh Alioune donc juste ça. map et comme j'ai dit grâce à map aussi parce que a lié le truc grâce à map itinéraire. il me dit que c'est à trois minutes de marche. donc je fais démarrer. et il m'indique directement le chemin. donc je suis plus là à. demander kon booy dem léegi da lay indiquer. ba nga yegg ci kër gi mu ne la ci kër gi. Donc je pense que ça, ce n'est pas une technologie qu'on a créée, mais on a ouais, utilisé MAP. Ouais, voilà, mais les QEQL, on a donc euh, doo nekk fii di laajte de gauche à droite sa yoon bi da nga utiliser code QR bi rek mu yóbbu la fi nga jëm. je pense que de yéen journalistes yi. Mhm. <laughs> di ngeen soxla lii. aussi ñi nga xamante ne ay étrangers et tout ça. donc je pense une quinzaine de code QR. Mhm. ci des endroits stratégiques. yu ci mel ni rond-point Médina mhm. euh, kër Papa bi nga xamante ne xalifa euh, la woon. kër imam Assane se kër gan euh, clinique imam Assane nga xam ne dañuy dañ koy laajte tout le temps mais soo xoolee côté bi tamit am na kër kër baay kër baay koosi koosi bi nga xamante ne lépp fa la euh, am nañ euh, kër baay am nañ kër papa maahi xalifa al xalifa fii grande mosquée bi fi nekk fii Taïba nga xam ne foofu mooy fala la Baye si juddoo fii mooy kër Baba Lamine donc on sait aussi que ne y a des am na yenn endroit ñu waroon def mais incha allah comme j'ai euh, dina dinañ gën a améliorer projet bi gën cee liggéey pour gën a étendre euh, affaire bi incha allah rabbi donc ku si gën a mag euh, man Ismaïla Ismaïla Diaw chargé de communication avec président Pape donc ñu si gën a mag 30 ans la waaw ku si gën a mag 30 ans la ay ndaw si Ibrahima Niass lañu comme ba Baye Manou ko wax sànq bëgg nañu mu élargir parce que Baye la solution Baye international bëgg nañu mu dem fépp xamante ni Cheikh Ndaw Cheikh Ibrahima Niass ñoo ngi fay nekk pourquoi pas Maroc pourquoi pas Indonésie fépp xamante ni ñu xam ne carrément Ndaw Cheikh Ibrahima ñoo créé li initiative bi Cheikh Ibrahima jóge parce que c'est Baye la solution ko ñun solution bi su ñun la war a jóge oui suñu premier au Sénégal donc ñu seet suñu suñu suñu sëriñ tënkuñu suñu sëriñ dañoo won liir leeral ñu lépp ñu xam ko amuñu lenn lu ñuy kii c'est pas lépp leer na ñun bàyyi lañ àndal te bàyyi lañ gis te moo ñu leeral. alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah. Euh, alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah. Kaaw ñu leen bu baax di leen ziar di leen ñaanal yàlla ko sax si yéen euh, waaw waaw man la Papa Barham en tant que président communication avec sama adjoint Baye Man ak Ismaïla waaw lii moom comme ni ñu ko waxee rek bu ñu ko réalisé yàggul dañoo toog xam ay xalaat moom dañ koy wax dañoo toog xalaat wax ko rek ne pourquoi pas ñu jéem a def lii innové. ci digit boo xoolee milieu bi ak jamono ji dañoo toll si jamono technologie ak digital ñu toog xalaat ko créer li après ñu ne pourquoi pas Medina Baye suñu dëkk suñu dëkk sëriñ ñu ko fa am na yeneen euh, yeneen yoo xam ne ñu ngi ñëw ay la waaw daal xam naa ko ñun daal ñuy woo ay ndaw képp kuy ndaw sabab nga nekk jeune ngay jàng ngay liggéey am am xalaat nga ñëw ñu lay woo boo demee suñu Instagram Moutakha Shabab mu ngi fa boo demee suñu TikTok am nañ Moutakha Shabab page yi fa ñu ngi def publicité fépp waaw ku bëgg a jokkoo nuñ daal euh, service communication baa ngi nii ñu ngi la si xaar di la si woo bu soobee yàlla parce que kese lañ amul benn mag kenn ko ñu ñëpp bàyyi moo yitte liggéey suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahima ñu si woo yéen yéen waa presse tam ñu leen remercier di leen a ko mën a génn pour nit ñi mën ko gis waaw comme ni ñu ko waxee ñun suñu ginnaaw sëriñ lañ tënku Mawlana Cheikh Ibrahima Niass yëngu-yëngu suñu bëgg-bëgg yëpp ci ci ci moom la wax dëgg fa yàlla donc comme mu tax chab li waxee mu tax chab li xilmati cheikh ay ndaw yi nga xam ne dañuy liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima Niass lañ donc ñun loolu mooy loolu moo ñu ñor loolu mooy suñu bëgg-bëgg donc di ci woo ñëpp euh, di ci woo non seulement commencé ko ci Jamiyatu Ansaaru Diin mais aussi COMOF bi nga xam te ne moo géré gàmmu gi mais aussi presse bi ak toute bonne volonté bi nga xamante ne lii neex na la te bëgg gis nga ne wax dëgg fa yàlla euh, bëgg nga affaire yi gën a law gën a yokk donc ñu ngi lay woo parce que on a plein d'idées mais les moyens manquent les ressources manquent mais bëgg nañ indi yeneen amélioration côté technologique côté digital incha allahu rabbi